Ndiaga Fass waaw Ndiaga Fass moo ñu wan ginnaaw Petit Modou Lo moom lañ jàkkaarloo ndeysaan Aliou bi sifflé na génn seen diggante boobu nekk deuxième combat bi ndeysaan tey nekk attention Ndiaga Fass tokkaas na léegi Petit Modou Lo Ndiaga Fass Petit Modou Lo moom ngeen jàkkaarloo Ndiaga Fass moo leen wan ginnaaw attention Ndiaga Fass Petit Modou Lo attention Ndiaga Fass sigil na léegi Petit Modou Lo ñaar ña ngay xeex attention Petit Modou Lo lu mu bëgg ba dóor mu daanu am attention ba dóor mu am Petit Modou Lo dóor na waaye Ndiaga Fass attention jëlante nañ ñaar. remonté nañ ñoom ñaar diggante Petit Modou Lo ak Ndiaga Fass attention Petit Modou Lo Ndiaga Fass ah, lu xew Ardo Ardo am na kay ndasaan Ardo am na na xeex nañ ñaari mbir dañoo xeex mu ngi noonu dem ci Ardo moom Ndiaga Fass Ndiaga Fass a ngi noonu dem ci Ardo ndeysaan xeex bi jaarul yoon moo tax. Ardo ngi noonu di leen xool mi ngi noonu Ndiaga Fass jóge na Ardo ñëwaat Habib Ba ngi laajaat ay sixième ba xam pare rek sifflé na desaan ginnaaw seen diggante diggante Ndiaga Fass ak Petit Modou Lo attention Ndiaga Fass mu ne woon ginnaaw Petit Modou Lo mu ngeen jàkkaarloo attention Rofante waa nañu daa mel ni mbëkk dafa am wala du la daa mel laa gis de su gis naa gis naa boobu dalle wala ñu dem xooli VAR waaw disqualifié disqualifié waaw waaw mi ngi noonu Petit Mbolo. Petit Mbolo muy ñàkk combat. muy ñàkk oh. mbëkkee. c'est la deuxième koy def. ndeysaan la deuxième euh. la forum la. la gis bi mais mbëkk nag amu ci lamb. amu ci lamb mbëkk amu ci koy def moom petit mouton. Oh. des fois yaram yi ñooy tàng nag. dafa demee am na ndam kaw. Ndaga Fall am na am na ndam kaw petit Modou Lo dafa mbëkkee ñu disqualifié ko. Eh. loolu oh loolu.